مرامي عند الله Bamba li ko daloon ca ba ko noon ya doon génne yóbbu ko Gabon mooy la daloon sangam bu tedd ba yonent bi sallallahu alayhi wa ba ñu koy fexeel ngir mu génn jëm Madina ngeen bindeef la yàlla yónni ngir mu soppi jikko ya def ca nit ñi ngëm ñu fexeel ko far mu génn jëm Madina sëriñ tubaa la yonent bi joxoon ndigal ngir mu yeesal ndonay lislaam ñu fexeel ko ñu far ko génne mu jëm Gabon waaye tey lu ëpp téeméeri ak ginnaaw ga alhamdulilah fu nekk la ñëpp di buure di ko fekk fa tubaa ngir sàkku njub googe ca safar